إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi dellu si waat nañ di sant suñu boroom di ko bàkk di ko kañ ci mbooleem tur yu sell yi ak melokaan yu kaw yi nga xam ne suñu boroom mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi di ñaan suñu borom mu dëkkee doot ci waamem xéewal ci kaw yonente boobu alayhi salaatu wasalaam suñu borom dafa sàkk doomu aadama yi ci kaw suuf sàkk ay mbindeefam yépp ñi nekk ay nit ñi nekk ay jinne ñi nekk ay malaaka ñi nekk ay rab borom bi sàkk mbindeef mu ñuy tuddee malaaka comme ni ñu ko xamee ci xadisab aisha radiallahu anha mbindeef moom moom du lekk du naan du xiif du mar du sonn du moy yàlla te ñi ngi ko bindee ci leer sunu borom sàkk meneen mbindeef moo xam ni day lekk di naan di xiif di mar di sonn di moy yàlla te ci sawara tàkki-tàkki safara lañ ko bindee kooku mooy jinne suñu borom tàkk meneen mbindeef moo xam ni day lekk di naan di xiif di mar di sonn di moy yàlla waaye ci suuf lañ ko bindee mooy ban kooku mooy abuna adam alayhi salaam wér na ci xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nammee sàkk baay aadam dafa yebal jibril alayhi salaam ni ko demal ci kaw suuf nga tibbal ma tànkab suuf jibril ñëw ci suuf si mu tibb ci ban bu tooy bi tan bu waw bi janj bi joor gi beeñ bi xeeti suuf yi am mu def ci ab dank yëf ko sunu borom subhanahu wa taala sunu borom sàkk ci doomu aadam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni loolu moo tax doomu aadama yi mel ni nu mel ñi dañuy gàtt ñi njool ñi xees ñi ñuul ñi xeereer ila axiri ñi baax ñi bon ñi soxor ñi laabiir kem ni suuf yi mel noonu la doomu aadama yi mel doomu aadama nag mbokk yi cosaanam mooy suuf suuf moom mu bàyyi ko bu faatoo it ci lañ koy delluwaat tax borom bi di wax ni minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan doomu aadama sunu borom dafa am ab àpp bu mu àppal ak dundam moom ak jinne yépp ak mbindeef yi ci des yépp sax nit ku sunu borom baaxee ba mu dund lu tolloog la mu war a dund ci aw fan sunu borom day yebal ci moom malaaka mu ñuy tuddee malaakam dee mu jël ak ruuxam jël ci malaaka mi jël ruux ak aji faatu kéemtaanu suñu borom bu màgg la kenn ku ci nekk mu xalaat ni bisam dana ñëw borom bi dana ko faat te bu ko faatee dafay wuy ci boromam ndax summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq mbindeefam suñu borom moomu ñuy tuddee dee na suñu borom da koo defee rëqukaayu ndigg képp koo xam ni kuy tëtal la ci kaw suuf ndax bari waa na ñoo xam ne ay buur lañ woon am na ñoo xam ne ay moykat yàlla lañ woon waaye ba leen dee bettee borom bi subhanahu wa taala jëlee leen ci kaw dund gi ñu jóge ci ay pale dem ci ay bàmmeel jóge ci wéttalikoo ay nit dem ci wéttalikoo ndunda ci kaw suuf yi wala biir suuf yi jaxasoog ay doomu aadama yooyu yëpp suñu borom daal di koy dàggal ñoom kat ñi faatu duñu wettalikonte mukk wettalikonte ñiy dund ni ñuy def te it nag ay nit lañ ñu jege yoo ay kër waaye kenn du ziyaare ci morom jiiraanu qurbin laa yatasaawaruun waa bàmmeel xam ngeen ni seeni kër li muy jege yoo moo gën a wóor sax ñun ñuy dugg suñuy kër ni muy jege yoo waaye nag li seen kër yi jege yoo jege yoo kenn du jóg di seeti morom la doxoon ci seen diggante ci ay copee la ki bëkkante ak jokkante yépp dafay daal di dagg te li ko nag mooy loolu nag suñ ko xamee ñun ñëpp dafay daal di yomb pour ñu xam ni suñu borom kat dafa def dee mu nekk nihaayatu kulli xay mu jëntalu képp ku doon dund waaye noppalu buñ ko waxee ci dee comme ni ko nit ñi faral di waxee diw dafa noppalu déedéet baat ba wóorul noppalu ki ragal yàlla moo koy am waaye dee moom du noflaayu képp ku faat sunu borom nag ku teral la doomu aadama ndax wala xad karramnaa bani aadam ak aay yi ngeen xam teraanga ji gën a màgg wala yi gën a màgg yi sunu borom defal doomu aadama bokk na ci mu dee ñu gas ci suuf gis nga nit lu mu màgg màgg même bu ñu ko doon jëlee ci tànk kaw yi gën a kawe doo dégg mukk nañ ko bàyyi ci seen dencukaay yu néew yi nañ ko aj ca kaw étage ba nañ ko déen fu ñu ko mën ci dugal rek nit ñi seen xel sax du daal kon nit faatu ñu wàq mu ko suul ko loolu teraanga la ci moom summa amaatahu fa aqbara summa ida shaa anshaa ma ni su fekkoonte ni am na benn teraanga bu gën a baax ci néew bu dul suul sunu borom danañu joxañ loola defe naa yéen a ngi fàttaliku xisab aadama ak ñaari doomam ya Haabil ak Qaabil ba kenn ka rayee morom muy bakkan bu njëkk a faatu ci kaw suuf booba xamaguñ ndax dañuy suul wala dañuy sànni wala dañuy aj ca kaw wala nun koy def borom xam-xam yi ñu ni qaabil jaaxle lool nu mu koy def sunu borom yabal ñaari baaxam comme ni ko alquran xale fa baax allahu guraman yabxas fi l ard li yarihu kayfa yuwaari sawata axii ñaari baaxoñ daje daal di xeex benn ba rey morom ma daal di wàqi ba mu xóot suul ca morom di jaay déggal li qaabil wax mu ne aajaztu an akuna mithla hada al gurab man maa doya di dëgg dëgg man lu ñuy def ku dee sax xawma ko ba baaxoñ di ma ko jàngal ci la daal di jël nit ki suul ko foofa lañ tàmbalee suul doomu aadama ci biir suuf almayit ki faatu inqataa jamiu alaqaatihi bi ahli dunia ki faatu lu la waay mën a wax lu dut mboolem relation yi mu doon séq ak ñi doon dund dagg na foo ko wax na lu ëpput képp ku faatu sa relation yi nga doon séq ñi doon dund ñépp nag laa wax dakk na relation bu kubbe na ida maata ibnu aadam inqata amaluhu illa min salaat te salaat yooyu yu lay fekk si la waaye du yu jóge ci yow di ñëw ci nit ñi comme ni ñu ko xamee ci xadis ki faatu xamul lan la nit ñi yendoo bay xam lu ñuy fanaanee képp ku la wax ni ki faatu mi ngi xam li nit ñi di yendoo wala li ñuy fanaanee kooku wax na lu ëpp ki faatu xamut nit ñi la ñuy guddiwoo ak la ñuy bëccëgoo laqad xiila baynahum wa bayna ma yashtahuun seen digganteeg la doon bëgg suñu borom def na baaraat si diggante booba noom kenn ca ñoom fala ila dunya raja wala ila al axirati aji addina moom du yàgg ba mu dellu si fi te àllaaxira it nag ma ngay dox yeggagul parce que balaa mu faa yegg rek suñu borom tukkal addina bi kon fa huwa fi barzaxin ila yawmi yubaatuuna fa huwa fi sha'nin yugnihi min axwaali ahli kon ki faatu day ma nga ci dëkk bu ñuy tuddee barzax ci diggante àllaaxira ak àddina moom nag bu fekkee nit ñi yaakaar nañ ni moom mi ngi faatu ba di faj ay soxla wala muy dimbali ay nit ñooñu lañu foofu amut ndax moom mi ngi ci ay mbir yu ko doy sëkk ak barke ci mbir ya nga xamante ni moom mooy tiis wa nekk ci ñooñ armeel ñun ñëpp ñu ànd xam ni borom bi subhaanahu wa taala bi mu sàkkee doomu aadama yi ñoom ñëpp daf leen a sàkkoon ñu war a mën a baax inni xalaqtu ibadi kulluhum xunafaa yent yàlla bi nee na ci xadis boo xam ne xadis qudsi la suñu borom nee na man yàlla bi ma sàkkee jaam ñi ñëpp dama leen def ñu set wicc war a mën a baax seytaane dikkal leen nag dévier leen def ay déviation yoo xam ne ñenn ñi ca lañ jàpp mu araamal ci ñoom yenn yi yàlla daganal mu daganal ci ñoom yoo xam ne yàlla daf koo araamal digal leen ñu bokkaale yàlla ci loo xam ni loola yàlla santaane ci mooy waral seen bugal xadis boobu ni ma ko tënkee waaye ab xadis la ngi ci saxee sa gos bi seytaane bàkkaar bi ko gënal ci bu doomu aadama yi def mooy bàkkaar bay tax mu tax safara seytaan bàkkaar bi ko gënal bu doomu aadama yi def mooy bàkkaar buy tax bu duggee safara du génn iblis sunu borom xamal na ko ni moom du texe sawara lay dugg comme moom safara lay dugg faw mu jéem a wut ku mu àndal ndax olof yi nee nañ ko lakkale faw mu jéem a wër morom day wut moromam mu lakkale comme moom ndax moom ku nuróole iblis lu mu mën dana ko def iblis nga dugg safara génnaat saxaaraate wu parce que boo duggee génn fa nga koy bàyyi kon moom bàkkaar bi ko gënal mooy bàkkaar bu lay jural xaalidina fiiha abada sax safara comme moom su ko defee coono bi seytaane daj ci nit ñi dañ bokkaale yàlla du ko daj mukk ci mooy yàlla iblis dañ koo laaj ni ko mooy yàlla ak mooy yàlla ak bidaa ban nga gën a bëgg mu ni bidaa la gën a bëgg ci mooy yàlla te bokk yi xool leen bidaa ni mu jegee topp yàlla xool leen mooy yàlla ni mu soree topp yàlla iblis mooy yàlla ak bidaa lan nga gën a bëgg mu ni moom bidaa la gën a bëgg ñu ni ko lu tax mu ni parce que mooykatu yàlla bi foo ko fekk ma nga fas ca xolam ni li muy def jaadu daa topp bakkanam rek kon kooku suuf la gën a jege moo tax bëgguma ko defkatu bidaa bi li tax ma bëgg ko mooy moom fu mu toll dafay gëm ni li mu nekk mooy dëgg moo tax tuub la gën a sori moo tax ma bëgg xam ngeen ne rot na ci xadis bu wér ne inna allaha xajaba tawbata an saaxibil bidaa yàlla dafa jël kiiraay muur ko digganteem ak defkatu bidaa bi moo tax tuub du ko yomb defkatu bidaa boo gis mu tuub xamal ni yàlla moo ko baaxe waaye bañ a tuub lay gën a jege ko tuub iblis bàkkaar bi mu gën a bëgg kon mooy buy tax nit ki sax ci sawara mooy shirk moo tax effort bu mu man ci yàq pas-pasi doomu aadama yi la ko def borom bi bi mu di bindee aadama nga xam ngeen ni aadama am na ci kaw suuf junni at ñu bari boo waxee at yu bari dañuy koy askanalee noox aadama ko guddoon fan la ndax wér na ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni sunu borom bi mu tàkkee aadama ba noppi njaboot gi wasaaroo aadama dafa geestu côté ndeyjooram daal di reetaan bi mu geestee côté càmmoñam mu daal di jooy bi ñu ko laajee lu tax mu def loolu mu ni bi mu geestoo côté ndeyjooram dafa gis mboolem ci askanam ñi ci yàlla nar a tàmbal àjjana loolu moo ko kontaan loo bi mu geestoo gis côté càmmoñam dafa gis mboolem ci sunu borom di tàmbal sawara ci askanam loolu moo ko jooy ci biir mbooloo mi aadama daal di cay gis benn waay bu rafet bu neex a xool mu laajte waaw kii kan la ñu ni ko kii de ci sa njaboot la bokk mu ne nu mu tudd ñu ni ko da daawul mu tudd mu ne ah kii de moom rafet na lool moom ñaata at la nar a am sax mu dëkk ñu ni ko juróom-benn mu ne juróom-benn fukk daa tuuti man ñaata at laa am ñu ni ko di nga am junni ñu ni ko kon téq nañ ci sa junni yi ñeent fukk may ko aadama bi mu dundee ba aw fanam di waaj a jeex mu daal di malaakam dee daal di koy gane si mu ne ko man fàttewu ma de junni at laa war a dund te junni yi manqué ne ñeent fukk mu ne ko xanaa da ngaa fàtte ne mayoon nga ñeent fukk sa doom ju ñuy wax daawul borom xam-xam ñu ni fàtte ba ko seen bàyyi defee moo tax doomu aadama yëpp nekk ay fàtte kat lii may wax boo demee ci kitaabu tawxiid bi ibni Madda di nga ko fa fekk aadama alayhi salaam bi mu dundee ba aw fanam jeex bu jóge donte borom xam-xam ñi ne sunu borom mujj na ko mayaat ñen fukk yooyu mu dund junni ba mu ban bi fi aadama jógee diggante aadama ak yonent yàlla nuux mat na fukki siècle te siècle borom xam-xam yi wuute nañ ñi ni mooy benn siècle mooy téeméeri at ñi ni mooy quatre vingt ans ila axiri wuute nañ ci ala kulli xaal lu xaw a jege ndax boo nee téeméeri at mooy benn siècle nga ne beneen téeméer bu ñaar téeméer bu ñaari siècle boo ko wàññi ba muy fukk mooy fukki siècle ko ay téeméeri ah téeméeri at plus téeméeri at ba muy fukk loolu lu bari diggante boobu yëpp bokkaale yàlla amul woon ci kaw suuf nit ñi dañ doon wéetal yàlla comme ni ko yonent bi waxee ci xadis bu wér bi nga xamante ni nuux ñëw na fi alayhi salaam ci jamonoom dafa am ay nit yu baax yu ñuy tuddee yaxuus ak yaxuuq ak nasr ak watt ak suwaar te borom bi di leen tudd ci suuratu nuux ñooñu comme ni ko bu fassiru yi di waxee ay nit lañ woon yu baax histoire bu mel nii bu jar a bàyyi xel la parce que yi ci lokk yu tolloog yi nii dund tey dafa bari juróomi nit yoo xam ni ñu baaxoon lan loolu amuñ ca problème ñu ragaloon lañ yàlla foofu amuñ ca problème gis nga ba ñu faatoo ñu daal leen di jël suuli affaire bi jeex iblis dafa dikkal askan bi ni leen ah yéen dëkk dëkk dëkk yéen a ñàkk kóllëre yéen ñii ni ñu baaxee woon ak ni ñu ragalee woon yàlla nii ngeen leen nar a suulee rek fàtte leen leen ah ku am ngor de def lii ndax ñii niñ baaxee woon war ngeen a def ay mandarga yoo xam ne ñun dañ koy fàttali koo ñëw xanaa xalaat bi rafet na de lool sax rafet na lool iblis yëkkeewal leen ni kon ni ngeen def mooy da ngay defar seeni estati ay ay ay dessin wala boog lu ñu tabax yoo xam ne dañ koy fàttalikoo ñooña nga xam ne ku doon waaja mooy yàlla sax boo leen téenee sa xel dem topp ci yàlla xalaat bu rafetatu waaye ak caay-caaya ko lal moo tax nee naa mbokk yi suñu xeeti photo yi ñuy takkal ci commune ci kër yi saa su ma ko gisee rek sama xel dem lool ndax mbir yi lii la tàmbalee man day bu ma faatoo mu fekk ma ca sama bàmmeel juróom téeméeri at ca gannaaw ni ma nit ñaa ngay jaamu ñii ñu doon foto comme nañuy jaamoo yàlla man du ma bett du ma bett parce que day fekk sóoraale woon naa noonu nit ñi defar ay état di fàttali gis nga iblis ku saay saay yàkkamtiwul ci li muy def dara gis nga iblis bu ñëwee dóor la korose ci kanam daanu woo mu dikkee la ginnaaw dóor la daanu woo mu dóoree la ndeyjoor daanu woo mu dóoree la càmmoñ daanu woo du ko dex découragé ne day jonkan di xaar day jonkan di xaar parce que xam ne ni boo meree porte ci jéeg mu dugg boo jàqee mu dugg boo jaaxlee mu dugg boo sonnee mu dugg bu sa ngëm yàlla wàcce bi moom état bi mu yore moom la yéefir yi yore dinañ tër benn plan boo xam ni ñu ngi deux mille onze fii ba deux mille vingt naru fee sotti waaye nañ ci sotti ay milliards yu bari parce que bis bu sottee rek dinañ récupéré waat lépp loolu mooy jamono bi muy xirtal nit ñi mi ngi leen di xirtal ci lu baax fekk dafa bëgg ñu xàll aw yoon ngir génération bu ñu demee mu dikkaat ci beneen génération bi ah ñooña def la mu wax jaamuwuñu leen nag di leen màggal noonu rek di leen fàttali génération boobu bi ñu faatoo iblis dellu si waat mu ne waaw yéen góor gi ñuy wax wat ak suwa ak yaxuus ak yaxuus ak nasr est-ce que ñii xam ngeen lan moo tax seen maam yi defee ne leen lii bàyyi leen lii ba tey ñu ne ajan de dégg nañ rek ñu ne mu ne déedéet man maa leen gën a xam li li xew ñu ne ko lu xew mu ni ñoom ñii ñoom lañ doon jaamu gis nga bu musaana ñàkk taw saa bu ñu ñaanee ñii taw bi daal di wàcc bu ngeen weddee essayé leen xam nga bu ñu essayé woon yàlla mënoon naa téye taw bi du taw waaye suñu borom dafa mën a seetaan doomu aadama léeg-léeg ci yëf yëfaat bu ko defee bu ñu jàqee dem ñaan taw taw bi wat rek ñu ne ay ca kon yaa ñooñu yooyu yàlla yi ca la jaamu xiram tàmbali histoire bii mën a tënkal lu mu gàtt gàtt jàppal ni mooy bidaayatu ibadatil awsaani fi wajhi al ard aw ala wajhi al ard bokkaale yàlla bakkaar la boo xam ni suñu borom daf ko xaraamal ci mboolem anam yi koy defee ndax bakkaar la buntul bari mbokk yi suñu borom ni inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha borom bi subhanahu wa taala moom loo mën a def lu dul bokkaale amaan na mën na la koo baal waaye bokkaale moom ak loo mën a ëndaale ci yiw àllaaxira soo ko ëndaale sunu borom du la ko baal bokkaale moom sunu borom du ko jéggale innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna ku bokkaale yàlla ara àjjana araam na ci yow wa mawaahu naaru safara lay dëkk wa maa li zaalimiina min ansaar est ce que mbokk yi ñun def nañ taxaw seetlu ci xool aay bi ñu mu toppalante ku bokkaale yàlla na sa yaram araam na àjjana loolu mooy lan mooy da ngay dugg safara kon lan moo fi jaroon ma naan safara ngay dugg gis nga boobu boobu taw kiit bu tegaloo day wane solos aay ci waaye day wane tiit lu goo xam ni bokkaale tiit lu ndax ku bokkaale yàlla sa yaram araam na àjjana loolu moom doy na ci wane ni safara ngay dem yemu te mu dëgg wa ma'waahu naar safara ngay dem te xam nañ ni ku dem safara doo am ku la dimbale mu teg ci wa maa li zaalimiina min ansaar moo tax alquran nit ki bu koy tadabbur dootul soxlaati jeneen wax dudul alquran parce que day fekk ci day dem borom bi subhaanahu wa taala mboolem gunt yi doomu aadama mën a jaar pour bokkaale ko sunu borom daf koo fattulu mboolem gunt yi tax nit bokkaale yonente bi da ko doon fattulu alayhi salaatu wa salaam bokkaale nag lu yaatu la xàll la woo xam ni wax ca taxul noo gis tey waaye romb ko jàll moonu tax a jóg bunt yi nga xamante ni doomu aadama mën na caa jaare bokkaale yàlla mooy ittixaadul qubuuri masajid jël bàmmeel yi soppi ko ay jàll mawdoo bi nag aw ab xaaj la ci biir shirkiyaat yi tënku ci biir bàmmeel ndax bàmmeel kat yéte lislaam tere du ñu def ko jàkka kese am na yeneen yu bàyyi waaye bindab tay bi saawa gi muy jaar mooy lan mooy àtteb lislaam ci jël ab bàmmeel def ko ca jàkka wala jël jàkka def ko bàmmeel nekk ak lan mooy àtteb ci lislaam sunu diine muy addiinul xaniif nga xam ne ñun ñëpp sunuy ballukaay mooy yàlla nee na yonent bi nee na ay njàngale yu set yu leer yu amul benn werante wala sikk sàkka yuy wane ni bàmmeel kenn du ko def ci jàkka yuy wane ni jàkka kenn du ko def fu armeel nekk te it loola dafa xaram ay tegtal yu wir te leer doonte nag am na ñeneen ñuy wax leneen waaye xam ngeen ni bant bu wéeru moom yomb naa daale xam na ndax dégg ngeen wax ci wala déet am na ñuy wax leneen lu dut lii mën a rawax waaye yëg leen ni bant bu wéeru yomb naa ba wax wéeru moom bant bu ko def day daal di ba wax boobu wax mu daal imam abu yaala mi ngi nettali ci musnadam imaamul haytami ibn hajar al haytami di ci majmahu zawaid te xadis boobu Cheikh Nasir al Albani wéral na ko ñu jëlee ko ci Abu Saïd al Xudri mu ni anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an yubna ala al quburi aw yuqaada alayha aw yusalla alayha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere an yubna ala al qubur bàmmeel ñu tabax ko rek jëmmi tabax waxaguñ ci mbirum jàkka jëmmi tabax bàmmeel rek yonent bi daf ko xaraamal aw yuqaat alayha wala nga toog ci bàmmeel bi wér na ci xadis yonente bi nee na nga toog ci wu xal mu lakk sa yére ba lakkaale sa yaram moo gënal yàlla nga toog ci bàmmeel kon bàmmeel kenn du ci toog aw yusalla alayha wala ñuy julli ca bàmmeel ba yusalla alayha dafay ëmb julli ca kaw bàmmeel ba ak julli jàkkaarloo bàmmeel ba comme ni ko borom xam-xam ne xadis yi waxee moo tax alimaamu sanaani nee na an al ittixaad al mazkuura fi l ahadith acamu min alsalaati ila alqubuuri aw alayha imaamu sanaani imaam ju mag la mooy ki sarxa buluugul maraam tuddee subul salaam imaamu sanaani mu ni jàppe gii ñuy wax ci xadis bi jàppee bàmmeel jàkka yaatu na lool ba julli jàkkaarloog bàmmeel ba sax ca la bokk julli ca bàmmeel ba fa mu nekk sax ci la bokkaale même bu dee nit ñi tuddeewuñ ko jàkk mu ne yëgal na ca la bokk tekkiwul ni day nekk jàkk rek nga doog def lu xaraam waaye suñ suuloon fii nga dem ba ca bàmmeel bi di fa jullee yow jàppal ni dem nga la yoon doon tere def nga bàmmeel bàmmeel bi jàkk te wax jooju wax bu dëgër la di wax imam Salah kon xadiis boobu benn tegtal la ngoog bu lay wan ni bàmmeel kenn du ca julli jàkkaarloo waaye kenn du julli ko mu nekk ñaareel nga xadiis boo xam ni imam muslim mi ngi koy nettali ci saxiixam ñu jëlee ko ci jundub ibn abdillahi albajali mu ne dégg naa yonent sa salaam qabla an yamuuta bi xamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila allahi an yakuna li minkum xalilun fa inna allaha taala ittaxadani xalilan kama kama ittaxada ibrahima xalilan ene maa ngi seedeloo yàlla tey dañ ci set wicc ni man kat amul kenn ku may farfarloo ci yéen naan mooy saab xarit ndax man kat yàlla daf maa tànn ab xarit ba noppi te it sax su ma doon tànn kenn xarit abubakrin mii laay tànn mu nekk sama xarit mu ni ala wa inna man kaana qablakum kaanu yattaxiduuna qubura anbiyaihim wa saalihihim masajid ala fala tattaxidu alqubura masajid inni anhaakum an mu ni ñi leen jiitu woon yëg leen ni ñoom suñu masaanaam yonent bu faatu wala nit ku baax ku faatu dañuy jël bàmmeelam soppili ko mu nekk jàkk yéen sama xeet nag yëg leen ni man yonent bi damay tere loolu xam nga li tax ma ne la bant bu wéeru mu wax ko day yokk wax dëgg yàlla wax yu bëreere yi nii yii amul benn firnde bu nit mën a am ci indi yeneeni wax yoo xam ne daanaka boo ko seetloo ba ci biir wax la ju taxawul sax di mën a saxal dagan nañu julli ci jàkk ju am bàmmeel way laaju suul ko fa way laaju mu fekki ko kon te xadis bi dégg ngeen inni samiatu nabi sam yaqulu qabla an yamuuta bi xabr jund bi abdullahi bajali nee na kàddu gii di ko yonente bi waxee ak bi mu faatoo cinq jours la xam nga loolu moom buy sës la rëkk juróomi fan bi ko yonente bi waxee ak bi mu faatoo kon lii ci mujjantalu dundam la kon bu fi kenn dinaa def nangam ji am na lu ko folli lan moo ko folli loolu yaa ko war a wax kon ñetteel mooy xadiisab imaamu Buxaari ak muslim te Aïcha di ko nettali nee na lamma lamma kaana maradu nabii sallallahu alayhi wa sallam tadaakara baadu nisaa'ihi kanisatan bi ard alxabasha yuqaalu laha Maariya Aïcha nee na ci yonent bi mu feebaree feebar bi mu faatoo mu dëkk ay soxnaam dañoo daje woon di waxtaan di fàttaliku benn église bu ñu gisoon ca Éthiopie bañ gàddaayee église bi mu ngi tuddoon Maria Ummu Salama ak Ummu Habiba ñoom ñaar bokkoon nañ ci ñi nga xam ne demoon nañ Éthiopie ca gàddaay bi ñoom ñaar kon gis nañ église ba na mel ñu ni cëj boobu église boo ko gisee ni mu rafetee dessin ya fa nekk ba ñee dessin ya fa nekk rek fekk yonent baa ngi sonn lool sallallahu alayhi wa sallam ci feebar bi waaye xoolal mag mu feebar ba tëdd nga xam ni feebar bi yegg na ci dañ doon jël morso gis nga jigéen ñi bu ñuy tay bu ñuy tay morso bi ñuy jël di ko wërale ci indi bi ah noonu la ñu doon jël di ko wërale bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk dañ koy tooyal ndox comme ni jigéen ñiy def gis nga bu jigéen ji xeppatee dindi morso boobu ni morso bi wawee ndax tàngoor bi yonent bi alayhi salaatu salaam metti bopp bi yeggoon na boo xam ne borom xam-xam yi ñu ni buñ ko ko takkalee ba tekki ko loolu la tàngoor bopp bi wawalee morso bi tooyam ki tollu boobu yaakaar naa am na leneen lu ko doy lu dul di wax wax ju amul solo yonent bi yëkkati boppam sallallahu alayhi wa sallam bi mu yëkkatee ba mu ni ulaika ida kaana fihim rajulu saalih banaw ala qabrihi masjida summa sawwaru tilka tilka suwar ulaika shiraaru lxalqi inda allahi yawma alqiyaama mu ni gaa yooyu ngeen di nettali yéen ñii mooy ñi nga xam ni bu ñu amee ku baax ku dee ci ñoom dañuy desee ay desee sab ko foofa wëlbatiku daal di jàppee foofa jàkka def ko jàkka mu ni ulaayika ñii def yoolu loolu muy jël ku faatu def ko jàkka mu ni shiraarul xalqi inda allah ñoo gën a bon ci mbindeefi yàlla yi subhaana rabbiyal aala mbokk yi xoolal ku yonent bi joxañ ni nangam ji ku ko def mooy ki gën a bon ci mbindee bi yàlla yi ndax yaakaar nga ni foofu ginnaaw loolu diine mën na faa amati déedéet ku ñu joxañ ni la yow yaa gën a bon ci mbindee bi yàlla yi nga ni lu ma def yonent bi moo lay wax li nga def mu ne la parce que da ngaa jàppee bàmmeel def ko jàkk loolu moom defe naa ku am looy kalaameeg looy wax yonent bi nga war a waxal waaye war a wax ak kuy jot ñeenteel bi xadiisab abu ubaydata amir ibn aljarrah mu ni axiru ma takallama bihi nabiyu sal allahu alayhi wa sallam axriju yahuda ahli alxijaaz wa ahli najran min jazirati alarab واعلموا أن شرار الخلق الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد yéen yàlla bi ne na juif yi nekk ci jaziratul arab yépp na ngeen leen génne te ngeen xam ni ñi gën a bon ci mbindeef yàlla yi mooy ñi nga xam ne dañuy jël ay armeel soppi ko mu nekk jàkk xadis boobu imam ahmad nettali na ko ci musnad abu nuaym al asbahani nettali na ko cheikhul albani nettali na ko imaamu tahawi tamit nettali na te xadis la bu wér juróomeel bi mooy xadis ba Aïcha radiyallahu anha mu ni qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladi lam yaqum minhu laana allahu alyahuda wannasaara ittaxadu qubura anbiyaihim masajid Aïcha nee na yonent bi day wax na te waxam ji min ko wax ci feebaram boobu nga xam ni jugaatu ca mu ni rëbbam sunu borom yàlla na tàbbi ci yahudi ak nasaara yi ndax ñoom dañ doon jàppee seen armeeli yonent yi ak armeelu gaa yi baax yi di ko def ay jàkk Aysa teg ci ni fa lawla dalika su dul woon ak loolu tere bii la ubrida qabruhu kon dinañ fësal bàmmeelam ba nit ñi gis ko gayra annahu xasiya an yattaxida ittaxada masjida ndax yonent bi sax dafa ragaloon ñu jël armée la def ko mu nekk jàkk xadis boobu ñu ci Buxaari ak Muslim xanaa xadis bi de bala maa continuer mën naa fee def ak taxaw taxaw gi mooy lu bari ci doomu aadama yi dinañ di faral di indi ay subahaat bokk na ci yi ñuy bëlëbee nit ñi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam armée la mi ngi ci biir jàkk ci defe naa noonu la ci masala moom moom yaakaar naa ci masala yi gën a ñor yoo xam ne ëpp naa romb jàll la ko ginnaaw bu ñu déggee xadiis yu wér yi te leer di jàngale ni bàmmeel kenn du ko def ci jàkka da ngay gis ay nit yoo xam ne dañuy jël nit ku baax suul ko ci biir jàkka wala fañ suuloon waa ji ñu soppi ko mu nekk jàkka koo ci ne luy sa tegtal mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir jàkkaam lan ko suul kooka balan koo tontu li ñu koy njëkk a wax mooy kàcc nga ba pare parce que yonent bi kenn suulu ko ci biir jàkkaam déedéet yonent bi ci néeg Aysa la ko suul néeg Aysa lu jàkka ja xam nga yu mel noonu nit ki xam ko dafa am solo parce que ki ne yonent bi ñu ngi ko suul ci jàkkaam kooka dafa wax lu dul dëgg parce que yonent bi kenn suulu ko ci jàkkaam déglul ma wax la taariku duxuli qabri nabii sallallahu alayhi wa sallam fi masjidi nga xam ni ka lay wax loola boo ko laajoon fan la armeelu yonent bi jaar ba dugg ci jàkka ji moom la ko wax atum juróom-ñett fukk ak juróom-ñett quatre-vingt-huit jàppal ak moom année quatre-vingt-huit hijri ma tegal na ci ni fekk na benn saxaaba yi ba pare année quatre-vingt-huit hijri fekk saxaaba yépp dee nañ ba pare nga boole ci loolu doo ko jàll jamono jooju benn waay bu ñuy wax alwalid ibnu abdil malik moo nekkoon buur te balaa maa ñëw kooku sax dama lay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy sukuraat dafa waxoon gaa yi ni leen ab yonent fu mu faatoo fa lañ koy suul kenn du ko déplacé loolu tamit na leer ndax ba léegi di nga amul jaaxal lu tax yonent bi suuli wuñ ko ca armeel ya ñu suul ko ci biir néeg néeg néeg la ko waral mooy yonent bi moo ne ab yonent fu mu dee kenn du ko def laaj foofu lañ koy suul alhamdulilah bi mu deewul ci biir jàkk ja ci néeg bi la faatoo moo tax Aïcha nee na bi yonent bi faatoo dañoo jël benn rideau def ko sama digganteeg néeg bi xam naa ku ko gën a ñeme nag loolu su dee jigéen ñëwuñ ko de ci benn néeg bi ñu def benn rideau ñu suul yonent bi fële waaye diglul attaqiyatu laqiyatu laabida Aïcha nee na su ma musaana nam ma ziyaare armeelu sama borom kër même bu ma solee taybaat sax damay muri rek ziyaara parce que sama biir néega ñu dem ba mu yàggoo Amar faatu ñu suul ko fa Abubakar it ma ni ah ki ñëw ak ki bi nekkoon benn la sama bàyyi la ak sama jëkkër waaye mu ni bañ fa suul see Omar doon ci mi ngi ci biir bàmmeel bi su ma bëggee ziyaara damay sol ba jekk ndax góoru jàmbur la ci ko te xool bi ci biir bàmmeel bi Omar ibn Xattaab mu ni damay sol ba mel ni jigéenu jàmbur doo koy doo doo doo doo doo ko muuri foofu loolu jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nekk Aysa ñoo taxaloo woon looloo waral boo déggee ñu naan la yonent bi sallam bu daan def i'tikaaf léeg-léeg mu génne boppam yor ko ci fenêtre bi Aysa raxasal ko boppam parce que néeg yee taxaloo woon Abubakarin moom jotu fee defar jàkka ji lu yaatu ndax xilaafam yàggul bu faatu Omar ibn al-Khattab ci jamonoom biñ demee ba gis ni jàkka ji dafa xat danoo yokk jàkka ji ndeyjoor kanam gannaaw bàyyi ko te càmmoñu parce que fële nekk Aïcha nekk te yonent bi day tere bàmbeel ci di jàkk allahu akbar li tax Omar yokkeewu ko côté boobu am na lu tax Omar jóge fi Osmaan yokku jàkka ji yokku jéggi dayoo waaye li muy yokk yokk nee na leen côté bi armel bi nekk bu ko kenn laal ndax warut a bokk ci jàkka ji Ali ibn Abi Talib jotu fee yokk jàkka ji ba ci xilaafa al-Walid ibn Abdul Malik affaire bi loo yokk boo taawi woon lay joor ba sa xol seet dafa dem ba jàkka ji dafa débordé lewu léegi léegi li ko tax a débordé wu mooy àll baa ngi ne yàmb lañ ci côté nekk Aïcha waaye kenn mënu faa yokkee jàkka ji parce que buñ ko fa yokkee mu dugg ci biir bàmmeel mbokk yi lu taxoon saxaaba yi defuñu ko bu fekkee nécessité lañ laaj nécessité mooy nañ ko dugal ci biir jàkka ji parce que yaatu gi laaj na ko waaye ñoom dañoo gëmoon ni loolu la xaraam ko ndax defuñu ci jamonoy Walid ibn Abdul Malik muy année quatre-vingt-huit tombeek Omar ibn Abdul Aziz moo nekkoon gouverneur bi waaye Walid mooy amir bi te directive yi mi ngi jógee ci amirul mu'minin Walid dafa bind benn lettre ni Omar ibn Abdul Aziz dajaleel borom xam-xam yi bi nekk nga ni leen amir joxe na ndigal jàkkay yonent bi mbaar yi dañ ko toj te dugal armeel bi ci biir jàkka ji parce que jàkka ji dafa débordé te foofu maa ngi fàttaliku saxaabi bu baax koo xam ni xam naa ko bu ko yàlla subhanahu wa taala fayee ay barkelam ci àllaaxira ci àjjana bi dana kontaan lool ku ñoo xaarita gis nga yéen bi ñëwee Madina xaarita daanaka kër yi nekkoon ci jàkka yi ci ëpp moo ko moom bu yent bi takkee benn soxna mu ni ko daggal naa la fii bu takkee benn soxna mu ni ko daggal naa la fii bu takkee benn soxna mu ni ko daggal naa la fii ba mbir ya naree bari mu ni gis nga yonent bi daggal ji sax moo ma commencé bëgg a suuf jël lépp ma dem fële allahu akbar moo tax ma ni ko bu ko suñu waroon fayee parcelles yi mu jox yonent bi moo tax xam nga yonent bi ñaan amul kër loolu moo tax ay xujaraat la amoon néeg Aïcha néeg Xafsa néeg Sawda néeg Umu Habiba néeg Zaynab daa ay néeg rek la amoon loolu Omar ibn Abdul Aziz dajale ña fa nekk ni leen lettre amirul muminin moo ñëw nee na jàkka ji dañ koy yokk te bàmmeel bi dañ ko ciy dugal ku sa kër nekkee ci côté bii nag ñëwal nga wax ma lu muy jar ma fay la boo ko nangu wut ñu xayma ko fay la ko par force waaye dinañ ko toj ku bëgg sa kër danañ ko jënd ku bëggul sa kër danañ ko jënd ña nangu nangu ñu jox leen seen njëg ña nanguwul nanguwuñu ñu forcé leen jox leen seen njëg toj seeni kër waaye déglul keroog jooju nga xam fekk fa sax saxaaba ya gis nga keroog doojee bis yi ñuy gën a fàttaliku defe ni ca la yonent bi faatu ndax ay jooy yu bari ci biir Madina bis boobu ci la bokk borom xam-xam yi saxaaba yi déggal doomi saxaaba yi taabi'uun yi kibaaru taabi'uun keroog fa la fekkoon Saïd ibn al-Musayyib ni ma tuddee ñu toog ne ñeent fukki at jàkka ja lay jullee ci waxtu yi fa la ko fekk keroog histoire bi may wax moom bokk na ci ñi jooy keroog jooy yu méttee métti bokk na ci ñi gënoon a révolté pour loolu du fi amee li tax du fi amee mooy yonent bi day tere bàmmeel dugg ci biir jàkk keroog fa la fekkoon doomi saxaaba yi am na benn waay bu ñuy wax abu salamat ibni abdirahman am na ku ñuy wax abu umamat ibni sahr ibni hunayb am na ku ñuy wax xaarijata ibni zaydin ñi ñëpp ci doomi saxaaba yi la ñu bokkoon ñoom ñëpp dañ doon jooyaloo ba nga yaakaar ni yonent bi tey moo faatu sallallahu alayhi wa sallam ñu ni waxuma la sax ñu jël armeel bi di ko dugal ci biir jàkka ji waaye yonent saa sallam néegam yi ni mu gàttee mi ngi lënd am ay lëndi jargoñ ay lii ci tàndarma lañ ko defaree néeg yi ci boppam sax lañ bëggul ku ko toj li ko waral mooy dañoo bëgg kuy aj kuy umra si ku ñëw ziyaar si jàkka ji nga gis néeg yu doyadi yi ñu ne la fi la sab yonent dëkkoon te mënoon a dëkk ci taaxi kaw yi loola dana màpp sa yi biir ba nga xam ni yonent bi mbiri àddina yi soxlawu ci dara ñu xam ni taaxi kaw yi ca mbirum faraa la yara bàyyi ñoom bokk na ci ñu doon wax loolu keram bokk na ci li leen gën a metti mooy buñ ko tojut ku ñëw def visite ñu ne fii la yonent bi dëkkoon wallahi sa yaram dana daw ndax xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu bëggoon fa fa fa fa buuru Qaysar buur bi ñu Qaysar buuru Kisra fañ doon fanaan yonent bi mën naa fanaan fu ko dàq waaye nag dafa tànn nekk jaam akub yonent néegi yoo xam ne amuli làmp ba Aïcha bu yonent bi daal julli sax léeg-léeg day làmbatu ndax néeg yi amuli amuli làmp néeg boo xam ni boo njoolee sax da ngay laal kuñ ba ca kaw yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni dafay tumuraanke ba nit ki su ko xoolee xam ni yonent bi alayhi salatu wasalam fii la dëkkoon loolu day màpp ay bëgg-bëggam ci wàllu àddina Saïd ibnu Musayyab mu ni damay ragal sax nag ja bàmmeel bi dugg ci biir jàkka ji te ñëpp xam nañu yonent bi day tere loolu ah gaa yëpp riposte nit du ci dal te loolu moo war a nekk taxawaayu gëm yàlla saa bu gisee lu yonent doon tere na ca def lam jaman Omar ibn Abdul Aziz bindaat beneen leetar yónnee ko Walid ibn Abdul Malik ni ko ah xay am na de dëkk bi kat ñoom ñëpp àndandoo nañ ni jàkkay yonent bi armeel bi du ci dugg parce que yonent bi da koy tere te loolu moo tax Aïcha mu ni walaw laa dalika la ubri sax xam ngeen bu Walid bindaat beneen leetar mu ni maa ngi koy jox ay nit ñoom bu ñëwee dañ toj jàkka ji force ku ci am loo ci wax dina la jaay doole dégg nga de kon mbir mi du mbirum xam-xam mbirum doole la woon mooy amirul muminin moo ko def saxaaba yi defuñu ko taabiin yi defuñu ko borom xam-xam yi def ab buur moo ko def dëgg la nag ab yàlla de subhanahu wa taala mooy ki xam suñu borom sax nag mën na koo jéggal ci jëf ji parce que yàq tax ko woon a jóg loolu du muy ngeen xamaale dëgg la jëfi buur a waa yàq tax koo jóg ndaxam jàkka ji xitmaal jàkka yonent bi ak di ko yokk loolu ci jaamu yàlla yi gën a mag la bokk ndax jàkka yonent bi ñaari ràkk yoo ko julli junni ràkk la ñuy bindal loolu yemut ak jàkka yi ñuy como yi ñuy boole nërul ak jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam Omar ibn Abdul Aziz yebal ay nit ñu ñëw commencé di toj jàkka yi bis boobu nag bis la boo xam ne Madina moom daanaka lekk ak naan saxaaba yi taluñu ko bu doon bëccëg la ma ne te lu ñu añ li ko waral moom mooy bëgguñu woon jàkka ji dugg ci biir bàmmeel bi bàmmeel bi dugg ci biir jàkka ji keroog jooju sax bi ñuy gas pour toxal xam ngeen yéen ci ma nga fa Abu Bakar ma nga fa Omar ma nga fa gars yi di gas pour yaawi affaire bi ci lañ di gas di gas ba mu yàgg rek ñu pikk bi dal ci benn tànk bi mu dalee ci benn tànk ñu muri gis muy tànk bu mel ni démb la faatu dañoo tiit ñu daw ndax li tax ñu daw mooy dañoo defoon ne tànk yonent bi daal alayhi salaatu wasalaam bi ñu arrêté affaire bi toog ab diir ci lañ vérifié gis ni tànk boobu tànk Omar la Omar ibn Khattab loolu man xamu bu rëy rëy rëy la ñëw ci manaaqibu Omar ibn Khattab année quatre-vingt-huit xooloo Omar kañ la faati woon ñaata at loo xam ni ëpp na ñeent fukki at di dem te loolu nag ci karaamaat yàlla defal bu baax ñi la xam ngeen Abu Ubayda Amir ibn Jarrah wala saxaabi bu baax bi bàyyi jaabir amr ibn xiram borom xam-xam yi dañuy nekk li ci madina bi ñu demee ba dëkk bi soxla ci woon ndox ñu natt natt natt gisuñu fu mu mën a jaar fu dul ci biir armeel yi te su boobaa lu tax ñu war a toxal armeel su amee mën na toxal armeel ñu ne kon dañuy sulli néew yi suulaat leen amr ibn xiram wala amr ibn jamuux keroog bi ñuy gat nga xam ni ñeent fukki at après ndax ci xilaafu mu ayee ñeent fukki at après ñuy gat affaire bi jaar ci jiwa yi nga xam jiwa bi jaar fi Uhud nekk fañ suulee woon gaa yi bi ñu sullee Amr ibn Jamuh ma dee woon ci ñeent fukki at dagg-dagg bi ñu fekkoon mu gaañu ko ca xeex ba ca mbagg ba mi ngi naaj te ñeent fukki at ci ginnaaw loolu loolu damay wax ni innaha la karamatul awliyaai xaqa loolu nag mooy wane ku yàlla wane subhanahu wa taala ñii kat ay gaa yu baax lañ ngay rijaalu sadaqu ma ahadullah alayhi bi loolu amee gaa yi soolaat tànk bi continué seen liggéey ci lañ toj jàkkay yonent bi dugal ko ci biir jàkk né néegu Aïcha dugal ko ci biir jàkk ji kon lii mooy taarixu duxulil qabri fil masjid foofu waqabaat yi fi am mooy benn borom xam-xam defu ko te bañ nañ ko saxaaba yi defuñu ko te bañ nañ ko taabiyoon yi defuñu ko te bañ nañ ko waaye buur nag léeg-léeg bu faral di bëgg la bëgg daanaka borom doole ni moom rek ko mën a tee lay def kooku benn la ñaareel bi gis nga bañ ko defee ba noppi gis nga balaa maa balaa maa ay ree di jàpp rek nga dégg ku ne dem naa ba ziyaare fañ suul yoon sa salaam ba dama ni fañ fañ ko suul joxañ nga ca maanaam joxañ ma nga dëlee dañ ko liggéey xeetu liggéeyin boo xam ni dama fàtte bi may ñëw am na benn image boo xam ne bu ngeen ko gisoon niñ ko organisé yow da da nga ne lii man xel nit ñi am da da ngay defee ni sax mi ngi mi ngi ci jàkk ji dëgg la waaye da ngay defee sax nekkul ci jàkk ji kooku benn la xaw tuuti kon ngay néew ci jàkk ji fam nekk moom daanaka yow ay mètres yu sori nga koy daal booy julli doo ko jege sax fa kooku benn donte dugg gi warta woon a am ba pare balaa sama xol bee jeex nga dégg ko ni damaa ziyaara ji woon borom barrière bu or dama ne borom barrière bu or bu yeewu woon barrière bi lay jëkk bal xitaan wallahi alazim bu yent bi yeewu woon sallallahu alayhi wa sallam ci bàmmeelam barrière boobu ñu ko defal mu or bi lay jëkk bal xitaan bi fële def ko tëgg yi ñu defal ko nit ñi ñu tax parce que danoon tere loolu sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi defuñu ko taabiroon yi defuñu ñaareel bi moom mooy tey nit ki bu fekkee gis na jàkka yonent bi ni mu mel ci mel xate ga taar ga mel ni sawaay pale bu nekk biir àjjana dama ne du noonu la yonent bi jàngale jàkka mel ak lu mu rafet rafet bu mu la yóbbaale jàkk war la war a mel noonu loolu tamit na leer jàkk war lu na mel noonu de muy jàkka yonent bi muy masjidul xaram muy masjidul aqsa yonent bi li mu jàngale loolu moo gën a wóor ci jëfe ko leneen li ñeneen ñi def nag moo tax dafa mel ni yonent bi alayhi salaam li mu doon jàngale loolu da caa feeñ gis nga masiixu dajjal bu ñëwee bu yéegee ci montagne yi tiim madina danaan gis ngeen leen di lerat lerat mel ni or ak i jamaa loolu la koy ci misaale mu ngi leen mooy jàkkale waaye du ñeme yéen sallallahu alayhi wa sallam kon nii la jàkka yonent bi duggee ci biir armeelu yonent bi duggee ci biir jàkka ji ànd ak saytu nan ko saytu boo xam nit ki sax du ko jege sax fam ànd ak loolu lépp yonent bi da koo tere léegi nag mu des beneen masala mooy ba léegi lu tax ñu fay julli te ma nga fa ok danañ fa julli parce que li tax ñu tere la nga julli ci sa jàkka ji te duñ ko tere fële sa jàkka ji daal duróowu ak jee ndax yonent bi moo ni fee boo fa jullee tiyaa bay junni ràkk ngay am te loolu valeur day continuer ba àllaaxira te yonent bi ci li ko yàlla xamaloon bàmmeel gi dana dugg ci biir jàkka ji looloo taxoon mën a yim doon def ak tëkk yi mu doon def mu bàyyi ba dernière minute yi muy dund di ko wax ngir bëgg gaa yi bañ koo def waaye yéen saa salaam yàlla xamaloon na ko loolu ànd ak bëgg ko nag aw xeeram danañ ko def ci ginnaaw kon jàkka joo xam ni boo fa jullee am valeur ku julli junni ràkka kenn du ko yemaleeg yeneen jàkka te yonent bi xamoon na loolu te ba léegi terewul kon dañ koy continuer julli ànd ak dañ naan waru fa woon beneen bi ci des mooy xanaa kuy toppandoo baa ngay nuru nuru da ngay nuru nuru sa morom sax yow sa xottu jàkka joo xamante ni daanaka yow kenn xamul nga bëgg koo gam-gam lekk jàkka yonent bi alayhi salaatu wa salaam damay wax ni ñàkk yar sax foofu la tàmbalee kon subaha boobu yaakaar naa ni bu ñu xamee taarixu duxulil maqbarati fil masjid danañ xam ni kon yonent bi alayhi salaatu loolu ko doon tere ànd ak lu dee dinañ fa julli parce que jàkkaar yooyu di bokk ta sa jàkk ñaareelu subaha bi ab aaya la ci alquran boobu sax moo gën a réel sax parce que subaha bu njëkk bi moom dafa mel ni sax nit ki bu ko comprendrewul dëgg-dëgg mën na koo nax waaye soo demee ci suuratul kahfi sunu borom mi ngi wax ne qaala alladina galabu ala amrihim lanataxidanna alayhim masjida xam ngeen asxaabul kahfi ala ujalatin saria buur lañ tombeeroon bu ñu wax Jaxyaanus bu taay taay ah la ko jiitu nit ñi góorgóorlu nekk ci mooy yàlla nekk ci mooy yàlla bi ñu amee benn feet benn jeune daal di génn dem toog ci garab bi keneen daal di ñëw fekkaat ko ci garab mu toog waaye waxut ak moom keneen ñëw fekkaat ko toog waxut ak moom ba muy mbooloo ki njëkk ñëw waaye lu ngeen fi wut gaa yi ne ko yow loo fi def ñu ni léegi kenn ku nekk la wax di gëm ak yàlla lu mu fiy def ku njëkk ki mu ni man damaa toog ba mu yàgg ma yëg ci sama xol ni ñii li ñuy def ay bokkaale yàlla la ma ni lii duma ko man daal damay jaamu yàlla moo tax ma beru kenn ku ci nekk ni wallaahi loolu rek mu tax génn man ñu ne kon ñun yàlla moo ñu boole kaay leen ñu génn dëkk bi ñu génn pour rawale seen pas-pas dem ba ca àll ba ca xunt mu muy kër ma suñu borom faat leen foofu ah ñaata at ñetti téeméeri at subhaana rabbiyal aala ñetti téeméeri at yoo xam ne ñu ngi ko tëdd ah yàquwuñ teeyuñu seen kawar yi teeyu jant baa ngi leen di tiim te seen yére yin doon sol lakkul ba yàqu lu tax suñu borom mu ni wa tara shamsa ida talaat tadawaru an kahfihim dat alyamin wa ida garabat taqribuhum dat alchimal borom bi subhanahu wa taala day yebal jant bi bu jant bi dikkee ba tiim leen may leen ci ceeñeer li tuuti mooy ñi la ca des ndax bu ceeñeer bi ñëwul der bi du baax ci moom te bu ceeñeer bi yàggee tege ci kawam bu yàggee mu yàq der ñoo ngi tëdd suñu borom ne wa nuqallibuhum daata alyamini wa daata alchimal léeg-léeg yàlla mu wëlbati leen ndax yaram bi bu tëddee ci suuf bu yàggee suuf si commencé koo lekk yàlla di ko di leen wëlbati wa nuqallibuhum daata alyamini wa daata alchimal ah ñu ngi ni xaw seen bët yi di xoole law ittalaata alayhim la wallayta minhum firaa boo di mun su xool leen da ngay daw ndax ci wala muridta minhum raawa suñu borom soog ba mu soog mu dekkal leen bi mu leen dekkalee ci histoire bu gudd maa ko tënk noonu kii naan ñun léegi lañ ci dugg ci suba si kii ni moo ne yàgg nañ fi de kii ni est-ce que amul fi téeméer at kii ni ñu ne daal xam nga li gën a wóor kan moo yore woon mu ne benn waaye mu ne yore woon naa xaalis ñu ne da ngay jël xaalis nga dugg ci dëkk bi dem benn boutique nga jënd nga xool ba xam ne dañ la saboté wala déet mi ngi mel ni benn waaye bu duggoon fii ci benn boutique indi xaalisu ngur xam ngeen xaalisu ngur muy xaalisu paaya xaalisu ngur du xam nga boo ko joxee moom day tiit bii xaalis kañ la fi woon bi nga ko joxee borom boutique mu di ko xoolaat di ko xoolaat mu ni kii dëkku ci dëkk bi ndax waa ñu ngi dox di xool rek bi mu ko jàppee yóbbu ko ci buur bi bi ñu ko enquêté ci lañ xam ni gars yi ña ngay toog di leen xaar fële ala kulli xaal ba histoire ba jeex daal bi ñu dégtee ba ci buntu xunt bi waa ji bu def benn stratégie mu ne bu leen dugg da ngeen di xaar ma dugg ci biir tàggukaay yi di leen am ngeen ay gan mu daal di gars yi taxaw di ko xaar moom mi ñëwoon mu dugg ci biir bi mu duggee ci biir ni gars yi ah am na lu xew ne ñu ni lu xew mu ne am ngeen i gan waa dëkk ba ñoo ñëw di ñu seet si ñun kat nekk yàgg nañ fi ñoom ñu diisoo seen biir nañ leen wax entré wala déet kenn ci ñoom mu ni gis nga ñun rawee la suñu pas-pas moo taxoon ñu ñëw fii te gis nga nit ñi dañoo gaaw ci taggaateeg jayaate gis nga buñ ñu gisee fii ak kéemaan bi ni yàlla defal dem nu jay ñu ba suñ jëf yàqu te ñoo ñaan yàlla ñu deeyaat bu jeex ñu dëppoo ci ñaan yàlla loolu ñu daal di dee ca saa si ñoom ñëpp bi ñu faatoo nag gaa yi taxaw ci biti taxaw taxaw gisuñu lu xel xam ñu dugg fekk ñu dee foofu la aaya ji tàmbalee nag léegi nag biñ dee gaa yi ñëw ñu ne léegi nu ñuy def ñi naan nañ ko miire ñi naan nañ ko def benn musée ñi naan kenn ku ne joxe sa xalaat suñu borom ni qaala mu wax alladina galabu ala amrihim ñu gën a not lanattaxidanna alayhim masjida nañ ko def jàkk nan leen def jàkk xam nga ay néew lañ ñu ne kon dañ leen def jàkk léegi ñenn ñi di sukkandiku ci loolu di wane ne kon jàkka manees na ko def ci armeel yi ñooñu bu ngeen leen doon toog lu ngeen di wax aaya jooju koo dajal ñu wax la ko loo koy wax tontu bu njëkk baa ngoog inna sharaa man qablana laysa ka sharaa sharia ak ñu jiitu woon li gën a dëgër ci ànd ak taxqiq mooy ni suñu sharia yi waaw fa kay fa kay ma xaalafa sharia seen sharia ak li gën a wér mooy ni suñu sharia bokkuñu doonte suñu sharia ëmbaale na ko waaye su fekkee seen sharia du suñu sharia ba fay fa loo xam ne ñoom seen sharia suñu sharia da koo xaraat kooku benn la ak ban tontu tontu bi ci des mooy kan moo la wax sax loolu la seen sharia loolu mooy laaj bi borom waxul seen sharia la ne qaala alladina galabu ala amrihim ña not ña gën a not mooy ñi ma doon wax sànq rek ñi def ba jàkkaarloo dugg ci biir ci biir mbir toujours gis nga maanaam mbir mi rek quwa galaba imaara kooku mooy ñaareel beneen bi ci des mooy yàlla ci boppam loolu sax da koo ŋàññi walakin akthara annaasi laa yuminuun laa yaaqiluun laa yafqahuun wa ma aktharu annaasi walaw xaratu muminin wa ma yuminu aktharu billaahi illaa hum mushrikuun moo tax loolaa wax mbokk yi ma ñu leen gis nga majorité dafa naa ngeen ko wax majorité wala qualité quantité loolu musul intérêt la gis nga mboolooy mbooloo mi na bari ko amul sens ak sariya ci boppam toppal alquran baqara ba naas ak sariya ku ëpp ko suñu borom tudd da koy ñaan mbir mi du mbirum bari mbooloo déedéet mbir mu mbirum qualité la boo nekkoon ci dëkk bi ngay dund sa diini ñi ci des di dund leneen yow nga nekk kenn wallahi maam ibrahima wala te illa ibrahima kaana ibni masud mu ni aljamaatu maa waafaqa alxaqa wa in kunta waxda mbooloo moom ajuwul ci ay nit yu bari mooy li dëppoog dëkk doonte yow kenn kon mbooloo ajuwul ci nangami nit danaa ñun léeg-léeg dañuy faral di tiitaroo sax bari mbooloo bu dee bari mbooloo jël sa tiitaroo ndax kon yaa iblis la yam ndax iblis ci ñi gën a bari mbooloo kon ak sariya kooku amul chance beneen bi ci des mooy te gis nga léeg-léeg istidlaalu ci benn mbir teeylu ko ba càmbar ko doo ci istidlaal ndax da ngay rus koo soxla te doo ko yëg qaala alladina galabu ala amrihim lattaxidanna alayhi masjidan ña gën a not nee nañ nañ ko def jàkka waa léegi kan moom mën a wax bi jot nañ ko def xam nga ba léegi gisuñ ni mbir ma jot naa yow nag da nga doon am tegtal ni yàlla nee na gars yi nee nañ nañ ko def te jot nañ koo def waaye wax ci li muy bari bari bari ñoom nañ ne nañ ko def jàkk waaye ba léegi déggooku li la jot nañ koo def jàkk yii ay adilla la yoo xam ni boo ko sukkandikoo da lay wan ni kon loola xaajul may mat ngelawal sax tegtal beneen bi ci topp mooy qad ittafaqa almadahibu alarbaati maa aham aqwaali almuhaqiqina min ulamaai salaf fi taxrim itixaadi alquburi masajid walhamdulilahi ala hada alittifaq ngirëm imam malik ngirëm abu xanifa ngirëm shafii ngirëm ahmad ibnu hanbal boole koog borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam umma bi yëpp ànd nañ ci bil qabuul dëppoo nañ ñoom ñëpp wuute sax amul seen biir ci ne dafa xaraam ñu jël bàmmeel def ko ci biir jàkka dafa xaraam ñu jël jàkka dem fa bàmmeel nekk ñu def ko atte bi mooy bàmmeel bu fekki jàkka da ngaa war a sulleeku jàkka ñu fekki armeel da ngaa war a toj loolu mooy atte bi cheikh al islam ibni taymiya muy cheikhul islaami bi xaq fi ak lu ko waay bañ bañ nag nga xam ni borom xam-xam yi dëppoo nañ ci di ci ñi gën a xam ijmaa bokk na ci déglu leen boo xam du ñor ji mu ni qad ittafaqa aimatu ddin ala annahu la yusrau binaau almasajid ala alquburi wala an tuallaqa alayha alsutura wala an yundara laha alnudura wala an yudaa indaha aldahab walfidda bal xukmu hadihi alamwal an tusrafa fi masalihi Ibn Taymiya mu ni borom xam-xami lislaam yi dëppoo nañ ci ne daganul ñu jël bàmmeel def ko ci jàkka daganul ñuy tabax bàmmeel daganul ñu fay takk ay rido daganul ñu fay def ay làmp daganul ñu fay def or daganul ñu fay def xaalis bal alal jooju ñu fa def bu lislaam dee àtte lii àtteem mooy nan ko jël xayma ko nu mu toll ca xaalis ni ko dagan ci biir baytul maalil muslimin ndax yàq la mu ni su fekkente ni gisul ku ko moom kuñ ñi alalam la ñu delloo ko ko loolu nañ ko delloo ci jullit bi mu ni wa yajibu hadmu kullu masjidin buniya ala qabri mayitin kaainan man kaana mayit dafa jaadu bépp jàkka joo xam ne dañ faa suul nit muy nañ toj jàkka ja ak kañ fa suul kum mën a doon nee na fa inna dalika min akbari asbaabi ibadati al awsan bàyyi bàmmeel ci biir jàkka bokk na ci yi gën a sabab nit ñi di jaamu ay xéew am na ci beneen place ci beneen téeréem dafa wax ni tabax ay jàkka ci ay armeel loolu sax daa bokkul ci diine jullit ñi ci diine ñeneen la bokk ñu dut ñun mu ni borom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu te wér na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ne loolu dañ koy tere daganul nga jullee fa daganul nga jàkkaarloog moom bu dee yonent daganul bu dee nit ku baax tamit daganul moo tax imaam ju mag ja alxaafid alxakami ci téeréem bu siiw boobu sullamul wusul dafa wax ko ci am solo mu ni wa man ala alqabri sirajan aw qada aw ibtana ala alquburi masjida fa innahu mujaddidun jihara لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل الأثر بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مسرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح القمر إمام الحافظ الحكم مني ومن كبكو خمني على القبر كي أبامل سراجا أو قلدا فاتلم أو يبتنى ولا تبق على الضريح كي أرمل بولا النيو بمسجدا جكا mu ni yëgal ni yow yaa ngi dekkal sunnay yahuud yi ak sunnay nasaara yi di ko gënale ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon la yonente bi tere loolu ak di tëkkoo ko tiital ñiy def loolu comme ni nga xam ne ahlu sunan solo nañ ko bala sax yonente bi armeel dafa teere yëkkati bul solo tebre nga boo defee nii doy na diggante fii ak fii doy na sëkk nga xam ne nit bu yëkkatee paan yi doy na sëkk ci yéegaay bàmmeel ñun nag boo dikkee da ngay gis armeel boo xam da ngay yaakaar ni kii jalax suuf la loolu da ngay gën a sonal rek suuf si ngay teg ci kawam da koy gën a sonal yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni Ali ibn Abi Talib ni ko jag bàmmeel boo romb ñu yëkkati ko lu ëpp seble nañ ko maatale estati boo romb daaneel ko photo boo romb état moo tax photo noonu la xaraamee estati ci mit kazaalik dessin yii ñuy def ak yu kenn xamut yent yàlla bi nee na ñi gën a metti mbugal ëllëg àllaaxira mooy ñiy dessin nataal yii ñi koy def nee na wa kullu qabrin musrifin faqad amar bi an yusawwa hakada xalqaba bépp bàmmeel boo xam ne dañ koo yëkkati ba ca kaw su la daa digal nañ ko maatale te loolu mooy xabaar yi wér jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga ñun muskila bi ñu am saxaaba yi amuñu ko woon ndax ñun ab masala bu ñëwee pour mu leer dañuy bëgg mboolem tegtal yi ci rot yépp ñu dajale ko joxandoo la loo koy doyee lépp yonent bi tere na ko benn yoon doyut waaye ñun problème bi ñu am mooy masala mënu am faw sa indi tegtal ya ca rot yépp mu doog a leer loolu ci mandargay faiblesse su gëm yàlla la bokk gis nga ab saxaaba wala taabia yi boo ko waxee yonent bi nee na nangam moom aajowut nga koy dolli beneen xadis benn ba doy doon ñun nag xaw ma waxe yonent bi daf ñoo doyut dama xamul benn dañu caa doyut wala lan mooy sunu gàkk gàkki xol su ko defee kon ci bunt boobu ñu jot a jàll dama yaakaar ni ñi nga xam ne dañuy tegtaloo jàkkay yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ñuy tegtaloo di wane ni tabax armel ci jàkka def armel ci jàkka wala def jàkka fa armel nekk dagan na yaakaar naa ne si ñaari technique yi gën a dëgër mooy yooyu mën a tudd moo tax yi ca des jërul wax ndax ñaari yooyu moom bu dàqoo yi ca des day daal di far dàqu tom bi ci topp mooy ginnaaw bu ñu xamee ni armel def ca jàkka daf xaraam lan moo ca topp nag léegi ci ay danger ndax islam kat lépp lu mu tere lépp lu mu tere am na ay danger yoo xamante ni ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay jàngaleem lépp loo xam ne nee nañ dafa xaraam loolee ay lor moo cay topp jël jàkka def ko ci biir armeel dafa xaraam ana yan musiba moo ca topp bokk na ci musiba yi ashirkul xatir xaytu jaala baaduhum tilka al amaakina mawa almahbubiin wa maqda alxawaaij wa mustasfa al amraad wa kaabatal xujjaaj xoolal shirk bi ma doon tàmbalee sama waxtaan ak danger bi ci nekk jël bàmmeel def ko ci biir jàkka foo ko gis xamal ni am na lu ca lool lonku ko ak shirk lay doon ba nga xam ni nit ñi dañuy dal di jël falaas booba def ko mawal mahmumin ku jàqati foofa ngay def te lii may wax defe naa ne moom wal waaqiu xayru shaahid booy wut seede moom defe naa li nga ne xëcc jàkkaarloo moom moo ca gën a gaaw am na ay barab yu nu def ay armeel yoo xam ne tey ña ko fa def ñañ jàpp ni ñoo fa nekk ñu sell lañ ñoo xam ni moo tax muqaddima bi ma tàmbalee bind bi ma tàmbalee ko ngir nga xam ni kifaatu inqataa alaaqaatuhu bi jamii ahli ki faatu moom talatu kenn ci waa àddina fa huwa fi sha'nin yughnihi min ahwaali ahli qubur yeneen gars yi ku jaaxle day jàpp ni ma nee ma ci armeelu diw gis nga jàkkay yonente bi laa wax alayhi salaatu wasalaam même imaamu Malik biñ ko laajee booy ñaan ndax sañ ngaa jàkkaarloo ar mu ni déedéet armeelu yonente mu ni déedéet même booy ñaan wan ko gannaaw bul jàkkaarloo Malik xam ngeen ni ku yàlla defaloon xëyba la ci biir jàkkaarloo yonent bi la doon jàngale gis nga xeet yi ku ko masaan a def police lay woo jël leen kii tëj ko jël leen kii ngeen yóbbu ko ci kaso bi ngeen tëj ko wala ñu cawlu la def nañ ko mustasfa al amraad muy fajukaayu feebar yi min xaytu tadruun aw laa tadruun ay armée la gi fi yoo xam ni seen suuf sax moo gën a seer beri jamaa parce que ay nit gëm nañ ni ñooñe dañuy faji aajo bi ñuy dund di faj aajo man bu ma déggee faju aajo dëgg dëgg ay ay ree damay jàpp ndax yow koo xam ni su aajo woo dem woon ak dem ko bu wànneen ci jotee mu wànneen bu soj jotee mu soj dina am ñuy dee ci ay njabootam mu wax la ko mu bañ la ko wax ñëpp fa bëgg fa la ko tax a dee moo lay wan ni yoru jëli te ay xisas yoo xam ni waahiyatun saniatun qabiha ñu di ko ne ci la ay nit di ci dégg te kenn du ci wax ngay dégg sëriñ diw moom mooy bu waxee mu am mu am bu waxut mu am wallahi loolu ay kàcc la xatta yonent bi amul loolu alayhi salaatu wasalaam amul ci kaw suuf koo xam bu waxee mu am bu waxut mu am déet loolu amut amul dégg yàlla subhanahu wa taala diw mooy fale mooy fal fal fal fal déedéet loolu yàlla yu'ti lmulka man yasha wa yantazi'u lmulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alxayr bu sifa min sifatillahi subhanahu kenn du ko gis doomu aadama day dégg ñu ne sëriñ diw moom daa tukki woon mu ñëw bi mu ñëwee ñu ne ko sa taalibe fa sa sàngam faatu na mu ne xanaa malaaka bi daf mooy fontoo lu tax saa góoma bi mu koy xaar leen ma ma ñëw dugg ci biir néegam génn ñaq tooy xepp muy def doon xëccoog malaaka mi ruugi faf sax nag dafa nangu roog taalibeem ba nangu waale ruu yi faatu woon ci bis bi yépp mu ne ko ñëpp tey dañuy dégg si waat dafa am loo xam ne ki koy nit ki li moo fenn loo boppam sax ba noppi ay xusaabalaat yooyu xuraafaat yooyu di ko nit ñi di ko gëm ay nit di ko gëm kooku xanaa balaa xëcciroo kenn xëcciroo boppam ba noppi yawaddu ahadun law yu'ammaru alfa sana kenn ku ci nekk boo dundal junni at sax du la doy ah te subhanallah gis nga gis nga musiba yi pour wan la ni la maanaam léeg-léeg dinañ yaakaare nit diine fekk li nekk ci moom ci caay-caay ma allahu bihi alim bi may ñëw fii une semaine laa wax une semaine avant may ñëw fii dem naa ci société ma waxtaan ak chef bi mu ni ma benn waay bu nekkoon foofu moo sàcc signature am daal di ciy sàcc jël ci retiré ci dara ci société bi ndekete def na ko ñeneen ak ñeneen moom liñ jël ci moom bëriwul bi affaire yi feeñee ñu fekk waa ji sàcc na ay millions yu bare bare ci ay nit ñu ni ko ci ràpp ci kaso bi kenn kuñ naan ee kilifa diine moo woote mu ni kooku sab taalibe leen bàyyi leen ko wala ma def déclaration léegi seen produit bi kenn du ko jëndati lii mooy ndey sàcc nag dëkk nag xam nga ndey sàcc mooy ko xam waa ji sàcc yaa koy fat sàcc na yëfi jàmbur tëj nañ ko te mbokk mi nee na ma noonu lañ ko bàyyee fay koy droit ba noppi ñet ñam sàccoon ñu perte ndax yi taalibe jiw lii su fekkente ni ku ñuy askanalee diine moo koy def yow koo xamante ni yaa ngi dox dafay tojaangee kër loo doon fii ci kaw suuf àllaaxira doo ko mën a def lu baax am na ñoo xamante ni jàpp nañ ni def tawaaf ci xabru diw moo gën dem màkka def fa tawaaf wallahi loolu aqida la bu ñu fas fii kon yii ay xeeti shirkiyaat la yoo xam ni doomu aadama yi ñu ngi koy def te fekk fañ koy defee mooy barab ya nga xam ni yonent bi day tere bu defa muy jàkk bokk na ci musiba yi mu jur mooy yonjax yonjax gi mu jur xam nga bokkaale bu ñu ko waxee rek daanaka tëb nañ lépp lu bon yonjax gi mooy fi mu ne nii mbaa xam ngeen ni am na ñoo xam ni yaxi néew la ñuy dundee yaxi néew xam nga loolu nu muy demee te gars yi stratégie bu bu bu bu bu baax ci ñoom nag la ñu yore ah yow sa baay bu dee mbaa sa maam nga jekk-jekkal palaat bi defar ko ba bu ñuy defar armeel bi sax dañuy defaraale palaat bu xaalis bi jaar ngir ay nit ñëw di ziyaare ji am lu mu fa tàbbal bu xew wi jàllee buñ ko sottee ay saakoy saakoy xaalis la koo ca xool loxo yaa nga nooy mel ni jéeg bu dox du liggéey fan lay dundee jeex yi néew parce que alal ji ñuy tàbbal ci néew bi loolu lay dundee moo tax it koo ci gis mi ngi leer nañ di sol lu rafet parce que yaxi néewi maam lay dunde ah loolu la yaxi seen yaxi maam ngay dunde parce que sama la sama mi dee la ñuy ziar di fa sotti xaalis doon nañu xaalis boobu ziar ku koy jël am na ziar yu fi am yoo xam ne ziar yi passé sët yi sa sëriñ yi sax ku nekk di nga am lu ma téeméeri ju waxuma laa nga fonkalee ca kaw waa mbokk yi lan moo tax économiste yi bu ñuy wax ci wàllu économie suñ tudd yii daaneel économie te mel noonu jamono yi passé ci affaire statut bi xewoon fële Dakar defe naa yéen a koy dégg gars yi di ci coow xutba kay di ci xutba man nangu ma ci xutba ñu wax wax ma ne du ma ci xutba lu ma ciy wax moom bi defar affaire bi li mu wax lu leer la yow boo ko tuddee xërëm moom nee na du xërëm dali damay wut xaalis loolu leer na nee na yu ko gën a bon ñu ngi fi te waxuñu ko wax na dëgg parce que bàmmeel bi ñu jël di ko ziyaare par at di ko visite muy shirk moo gën a garaaw fuuf estati bi lan moo tax borom xam-xam yi wax ci estati waxuñ ci lii loolu du maanute déedéet du maanute da ngay boole ni ñaar yëpp ko bon mbaa nga noppi ci ñaar yëpp waaye maanute loolu man ko man bu ma gëm ni maanute la pourquoi ñu topp ci estati défendre ma ko bi ma ko waxee ci xutbay jumaa ma ñu leen amaan na ku ma dégg defe na ma koy wallahi maa la gën a xam ne lu bon la bëgguma ko de waaye lu bon ak lu gën a bon buñ dajee da ngay jël la bon bàyyi la gën a bon li gën a bon mooy shirk bi nga xam ni ñii dañoo jàpp ni fii mooy kaaba gi dañ koy wër di ko ziyaara di ci faj ay aajo ay alal di fa tuuroo ay nit di ko dundee moom mu bëgg ay touriste mu ñëw fi la fay génnee mu am ci pourcentage wax na dëgg ñii dañuy wut xaalis wut xaalis nañ mu araamee mbiram boppam ah waaw ñëpp dañuy wut xaalis lii wallahi waxuma ko pour défendre parce que maa la gën a xam ne loolu dafa xaraam li may bañ mooy ñu jël lu dul bokkaale ni mooy bokkaale làq doom fat doom fat doom dóor doom laay bañ ngir lan duñ ko wax parce que dañoo jàpp ni ñi ay këri diine lañ boo ci waxee coow yëngu bu coow yëngoo ñu nga ci tamat si dund doy na nga dee nga dem mu jeex sa dund sax kenn mënu ko fee jël lu dul yàlla moo ko dogal li am mooy dëgg ak yàlla ci xasaral basri nee na wallahi borom xam-xam yi war nañoo ragal yàlla ndax yàlla gàtt na ci soonu lool jaati na ngeen wax li ma leen wax loo wala ma leen dégg loolu xasaral basri la wax kon économie fi mu nekk nii maanaam xoolal shirk ah kii day nekk sëriñ du nangoo liggéey kii nekk sëriñ du nangoo liggéey ministre bi dafay dem député bi dafay dem directeur société bi dafay dem moom mi ngi moom moom benn liggéeyut mi ngi yàq économie bi ñaareel bi moom mooy moom mi ngi liggéey ay nit ñooñu di yàpp ci ay cadre yu jàngi woon ba ñu bis loolu ci liy daal économie bi lu tax économie yi duñ ko wax Mali ak réew yi ñu wër fan lañ mën a jaar ba gën noo yomb leen dawal li ko waral mooy sa gàmm ak maam sama gàmm ak maam waaye dama ne ku nekk man organiser gàmm ak maam fee ñu rey fa junniy nag fee ñu rey fa téeméeri nag fii ñu damay loolu ci liy daaneel économie la bokk te économie si kenn du ci wax dañ cee war a wax parce que maatute mooy xam-xam da lay laaj li li daaneel mbir mi lépp amul looy laaj waxal lépp bu ko defee xoolal gàtt ni mu fi yëpp ni mu fi jafe parce que ñaata at ñaata ci at mi ay xew-xew yoo xam ni benn la ci l'islam reconnaître ñu rey ca ay jur yu bare bare bare garab gi ku ci yëg da ngay dee tool bii ku ko bay da ngay faatoo fii ku fi jaar da ngay jommeeg bu ko defee ab àll ni yàmb la kenn du ko nangoo bay parce que yàmb la ci ku ko bay da ngay dee gis nga yëpp ay xeeti shirki yàlla yoo xam ne ñu ngi faral di am te benn la ci maa anzal allahu biha min sultaan bokk na ci musiba yu jur mooy aw xas la ñuy jural am na benn anglais bu ñuy wax Edward Lee subhanallahi alazim dafa wax wax joo xam ni aw xas la wu bon yàlla yi naka woon mu bañ a dem ci jullit ñi waaye ca la jëm Edward Lee ab anglais la ab yéefar la gëmut lislaam waaye nag jàng na ba xam lislaam ba doon gëstu bi mu defee ba ay recherche jeex dafa bind téere ci wàllu sufiyanke mu ni ah jullit ñi rawatina Égypte gi nga xam ni moom laa gën a maîtriser mu ni ñoom ñëpp ak li ñuy wuute wuute wuute dëppoo nañ ci lii may bëgg a wax mbooloo ñu ñu tuddee wahaami yi gënee ci bokkum ñoom seen allahu akbar xam nga ñuy wahaami mooy ñi ñaan ibaada yi ñoom la ñuy tuddee wahabi yi mu ni wahabi yi kese ñoo set ci li may bëgg a wax mooy ñoom ormal gi ñuy ormal ku faatu te dee moo gën a dëgër ormal gi ñuy ormal kuy dund te man yéefar bi xam naa ne loolu saxul ci alquran saxul ci sunna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéefar mooy wax mu ni ixtiraaman wa taqdiitan laa sanada lahuma fi lquran aw il ahadith saxiha seen prophète Mohammed moom boo ko tuddee mu ne ñoom seen prophète Mohammed xadis yi mu wax lii amul alquran diglewul ñuy màggal néew yi wala ñu leen dugal ci biir jàkka yi xoolal li ci teg mu ne wa sayi wa yusayiduuna fawqa aglabi quburi l awliyaa il mashhurina masajida kabira jamila mu ne léeg-léeg sax dañuy yegg ci armeel yi gën a siiw ñu gën a màgg ñu dafa leen ay jàpp bokk na ci musiba yi nga xam ni am na ko te boobu nag moom mooy musiba ci gën a yi sax nag mooy fam bàmmeel yu bari yu naan la diwa fa nekk du dëgg yu te loolu ci dëkk yi seytaane na xëy bi Cheikh al Islam Ibn Taymiyya ci Majmuatul Fatawa mi ngi wax ju am solo mu ni li gën a yéeme mooy barab yu bari yoo xam ne ña ngay askane ay nit ñëw fa tëdd mu ni ñooñu tëdd ñu fa nee na boo demee ca kar am na place buñ naan noox moo fa tëdd nee na du dëgg boo demee ca dimash am na buñ naan Ubay ibn Kaab moo fa tëdd mu ne wérut mu ne am na armeel bu ñuy wax Uwaysul Qarani moo fa tëdd mu ne wérut soo demee Madina am na buñ naan Aysa fa tëdd ñenn ñi ne du Aysa Umu Salama la ñenn ñi Umu Salama Umu Habiba la mu ne du dëgg boo demee ci Égypte ci capitale ba Qahira am na ku ñuy wax Xuseyn ibn Ali moo fa tëdd loolu sax doyalal sa bopp ndax Xuseyn daa déem foofu bañ ko fay suul sax faf soo demee ci Xalab am na armel bu ñu naan Xaalid ibn al-Walid moo fa tëdd mu ni wérut boo dikkee Dimash am na ku ñuy wax ni defar ba mu jekk di ziyaara ni Bilaal moo fa tëdd boo demee Daariya am na ku ñu defar defar ba mu jekk nee nañ Abu Muslim al-Xawlaani moo fa tëdd boo dikkee Madina am fu ñu defar ba jekk ni Fatima fa tëdd nee na lii lépp muy li gën a yéemi sax léeg-léeg sax dañuy defar ba mu jekk te boo dee ku fa tëdd duñ ko xam subhaana rabbil aala xanaa di ngeen yéemu su ma ne leen fii ci Sénégal sax loolu am na fii ci Sénégal am na barab boo xam ni inda tahqiq bi ñu ko toppee laaj ay nit laaj ay mag vérifier ci côté vérifier ci beneen côté laajte laajte waat gëstu ñi xam barab boo xam ni li fay daje ci ay nit bari na lool fara at ba ci ma yaakaar mooy lu toll noonu daje ci beneen barab ka ñuy wax ni moo fa suul tëdd ba dee ab ban dafa nekk dara ñëw xam nga lu waral loolu ki ñuy wax ni moo fa tëdd deewul ci dëkk boobu ñi xam dundam nee nañ mi ngi dee ci beneen dëkk bi muy faatu dafa duggoon xalwa bi mu duggee xalwa mu faatu te nit ñi yëguñ ni faatu na mu yàgg fa ba yàqu fa ñu ubbi xool gis ni yàqu na kenn mënatoo yëkkati suul ñu ñëw kat ba mu xoot suul ko foofu ab taawam jël ay technique initiative boppam def ay technique nax nit ñi daaru kees diw faatu na ñu yóbbu ko ci barab ñu falal ko suul dara néew fa ñu koy ziyaar xam nga lu ko waral fi ñu wax ni bala baatoo ak fan bëgg recherche ba ressource ba di fa génnee bokkul te boo nee fii la baatoo nit ñi foofu la ñu ñëw di ziyaara ji ñu def ba fële defal fa armeel bu jekk orne ko ba mu jekk di fa ziyaare sànni sa xaalis dama ne ñi ziyaare seen xaalis nañ xam ni foofa lëppëtë si sax du ba bu fii Sénégal fii laa wax naa kooku góor la am na keneen koo xam ne jigéen la ñi ngi koy ziyaare par at sun dëkk ñi xam dëkk dañuy wax ni bàmmeel la sax dara leen xam ndax dëkk ba mu sañcoon dem na ba dëkk fa raaf ñu dem ba ay jëmmi jamono nit ñi bëgg xam fu armée bi nekk dañ ko doon wëraatu xam ngeen ni kuy wëraatu ba mu fa armée nekk bañ paree ñu samp ni diw sàngam jigéen sàngam fii la nekk ñu koy defal di ko ziyaare par at dama ni kuy làmbatu yi jeexaat xam na lañ koy jeexaate ñoom ñaar dërëm sax boo ko jeexaatee du feeñ boobu sax ngay jeexaate armeel kon jooju ay xeeti technique la ak i nax yoo xam ni ñi ngi koy naxee doomu aadama yi te fekk ci pexe seytaane yi la bokk kon tey fukki tomb yooyu ma dajale woon bii ma wax mooy bi ko fukkeel ma ni fa tilka ashratun kaamila fi qubxi ma lam yaxzan bihi llah fukka boobu ma tëkk yi wane bon ak yoonal loo xam ni yàlla subhanahu wa taala yoonal kon li jaadu ci ki gëm yàlla mu xam ni bàmmeel kenn du ko def ci jàkka bu bàmmeel fekk see jàkka ji na sulleeku ji dem bu jàkka ji fekk see bàmmeel nañ fa jàkka ji comme àtte bi masjidu diraar te it ñu xam ni jàkka jooje kenn du fa julli loolu mu leer yenn ci borom xam-xam yi sax dañuy wax bu fa kenn jullee dañ koo sibal dañ koo araamal dama ni usul yi dañuy wax ni an nahyu yaqtadi at tahrim tere la muy wane mooy ak araam yonent bi saa sallam day def xaraam bul fa julli bul jàkkaarloog moom bul julli ci kawam bul ko def jàkka te ka koy def yaa gën a bon ci mbindeef yàlla yi imaamu zahabi ci kabair nee na dëkk yu toy nii yàlla du ko def ci bàkkaar bu kon li ma jàpp teg ko ci wax borom xam-xam yu wér mooy jàkka joo xam ne dafa am armeel kenn du fa julli kenn du fa julli dama seeti beneen jàkk nga jullee ci fa dama ni julli mooy sa sànni tàccu allah bul ci négocier kenn bul ci xajal kenn bu baaxee nga baax le bu bonee nga bon le dama ni imam bi may jullee ndax laa bu julli wul julli bu ma xam damay dem julli beneen julli ka ma xam ndax la tax sama digganteeg sama borom la tax muy julli du ma ko foye déedéet kon fa kay fa ka jàkka joo xam dafa am armeel fa kay fa ka jàkka joo xamante ni yow daanaka subhanallah jàkka yoo xam ne bu ñëwee allahu akbar ngay jàpp yow balaa sa jàppam yeegi def nañ baax yoon saalihaat ba pare loolu du julli loolu du julli déedéet du julli de yaa mun sa bopp sharia néew la par force jullee jàkka sàngam boo gisul loo xam demal ci jàkka ja nga xam nga jullee fa te nga xam ni ëllëg yàlla du la laaj fa nga dugg sa jàkka ja say jaamu yàlla la lay laaj ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammad